Euh, draft bi yow ndax yow ndax lu mën a lu war a jàll la maanaam yow xëy na gis nga ko wax laajuma sax honorable as laajuma la as euh, honorable as honorable waaye dama dama la laaj comme koo xam ne comme ci doomi réew mi nga ndax sa doon doomu réew moo jiitu nga nekk député euh, ndax bi yow jàpp nga lu war a jàll lu war a mën a jàll la. waaw dafa war a jàll parce que dafa lu fa nekk loo xam ne man sama ba neex na ma. te nit ñi nangu nañ ko te loolu la askan bi soxla. mooy maanaam benn mooy. fu mu nekk right now dinañ agree ne euh, retroactive clause bi euh, dinañ ko dinañ ko dinañ ko taxawal si yoon benn 50 plus one mu ngi fa two term limit bi mu ngi fa loolu foog naa ne loolu euh, nekk na constitution boo xam ne Gambie bi ko mosu ñu am yooyu mosu ñu am 50 plus one vote simple majority moo fi nekk vote soo wiinee by one vote sa yaa nekk président bi soo su ñu indee 50 plus one foog naa ne loolu advantage bu rëy la pour nit ñu grab boobu noonu two term limit bi tamit is very important parce que 1997 bi boobu. you can be here as long as you want as long as you are winning elections so su dee draft bi indi na two term limit bi foog naa ne war nañ koo mën a war nañ ko mën a seet comme nu ma wax rek am na provisions yoo xam ne dëgg la nit ñi yëpp duñ si ànda waaye tamit dina jafetoo pour ñun yëpp ñu ànd si am na kon am na provisions yoo xam ne duñ ci ànd ñun yëpp loolu possible sax te su fekkee loolu rek mooy tax constitution bi du am kon constitution du am du am parce que dafa am yoo xam ne yooyu moom foog mu foog foog foog ñu ñu am si compromise. te secondary lifin lañ provisions yoo xam ne comme nekkuñ entrench mun lañ naa mun mun nañ koo change at the even constitutional constitutional amendment daf dee am dafa am yoon entrench clauses moo gën moo moo naxaree change parce que boobu noonu pour nga change ko da nga dem référendum waaye loolu nekkul problème bu soo man su suma gis-gis man dama foog ne dafa war a dafa war a paas. dafa war su fekkee ne comme nekkuñ di xool ne ok because dañ dañu reject 2020 draft bi. soo ñun tam dañu war a reject bi by force su nekkee dañ ko war a objectif li ñu seet lan lañ si soxla ñu jël loolu noonu yeneen yi nga xam ne comme ñun soxla ñu ñu bàyyi la ba suñ demee ba nga xam ne comme toll nañ place ñu def am ñu indi seen amendement am nañ ñu seet naka lañ ko changé pour man de draft bi is not about président Barrow waaw